ñaari doomu aadama yu ñak seen bakkan ak ñaar ño xamne jamono bi ñu nga ci ay metit yu tar moy li ñu nemmeeku nak ci lak gi nga xamne ma nga am ci guddik japp al khamis bi ñenti waxtu jotté ci fajar si lolé ma nga am ci bar ñi fenkoon ab xalé nak bu am juroom ñaar yaat ak soxna bo xamne warna tollu ci ñen fukki at ño ci ñak seen bakkan ñi ko biral di ñi nga xamne ño ko fekke wa lak bi metti na trop franchement metti na lol lol lol foo na ta weesu na na lol wa lakk bi moom presque ay 3 heures et quelque presque 4 heures la ñu yeewu daal fekk fii di lakk lakk gu métti goo xamante ne te lakk gi bu fekkoon ne ay robine am na fii si koñ bi fii nii lakk gi du demee noonu du am ay moon man de dama nelaw gars yi di ma yeew ci sama nelaw léegi ne jógu leen jógu lakk na après ñu wàcc ñu wàccee ñu gis ñu gis lakk bi ñu génn jaboot yi suñu jaboot yi après ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw préparé programme làkk bi fii pour bugga sowe ñu fi nekkee ci biir néeg bi laata nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di dëkkandoo yi mën a fay taal gile sonnoon nañu lool ndax ñàkkum ndox balaa sapeur pompier di yëgsi rawale ña nga xam ne ñoo ci loru askan wi moo tax jamono bii ñuy sàkku ci kilifte yi ñu defal leen fa ay bouche d'incendie ñu mën a mucc saasu ne ci njombe yu ni mel ndax seen ab dëkk bokk na ci itam lëndëm këruus nga leen lëjal lool mais surtout ndox nit ndox moo koy dundal nit ndox moo koy dundal ñun dañoo soxla ndox kon ñom bu boobaa duñu di dinañ jéem dinañ leen sobi na lakki gi ci commencé si kanam la commencé avant mu dem ci neeg bi kon bu boobaa dinañu ta ñu mëna a dinañ kii nu comment dire ubbi robinet yi ñu mëna a ñu mëna a yaay yaa dégg imam bi da la jéende dem dem jàkka ja rek waxu ñun ñëpp ñu jéende xam nga ñu suñu fane rek ci mbedd ñu jéende yem ci yaay ngi dégg sinon kon xam nga affaire day graw day graw surtout ndox nañu dimbali ngir yalla ak yorante bi ñun bu lool imam bi mom la imam barni ñun bu loon ak carrément imam bi day metti boba ñom ñep ci biir lañuy dess nañu dimbali ngir yàlla wutal ñu ndox ñun sonal nañu dañuy root guddi root bëccëg suñuy doom yi ñëpp a tilim ñi nga mën di ma tilimee nañu wutal ndox dañoo sonn dañoo sonn nañu ndox bu loolu nag loolu lakk kenn doxaatu ko ok merci beaucoup problème bi mooy fii amul ndox gaa yi nañ dimbali si fii la courant yi and ñu suñu courant fii dafa boo boo boo fi kiyee boo lakk fi amee doo mën a fay parce que amul robinet amul ndox amul dara dañoo négligé maire bi liggéeyoo fi waaw maire maire yi bari ñi liggéeyoon nañ liggéeyal ngir yàlla ndox pour en cas cas yu cas yu mel ni bu fa amee ñu ñu ñu ñu lotise kii yi Moussa lotise koñ yi nañ ngir yàlla àndal ñu fii suñu suñu ndox mi ñu commencé and ñu fi ndox and ñu fi ndox and ñu courant fii dafa la dem crous gars yi fii fenkoon si li si bari ñi waaw safaan bi nag duguleet muy am ci quartier yi nekk ci ginnaaw raay moo tax askan wi jamono bii di sàkku ci kilifa yi ñu indi ay matuwaay yu mat sëkk ci seen kaaraange rawatina ci wàllum ndox laata nag ñuy xam ana lan moo waral lakk gi ñoom askan wi ne nag doy na bëggatuñu yi ni mel di fi am fileeg autorité yi jëluñu benn mat